tay mom ñu wàcc ci terrain bi donc comme niko président bëggé suñu leader bëgg ko muy maram Aminata Touré donc ñu ne woon tey nañ ñëw euh, joxe suñu participation depuis le 4 passé bi président di lancer mbir mi lañu président présidente ne woon nañu wàcc vraiment conformé à l'appel du président fekk ji gouverneur ak préfet donc bien seul bien avancé la sax parce que ñun yàgg nañ di wacc ak mom ci terrain bi di def ay set Kaolack vraiment tay mu ne woon nañ ñëw dugg bir mirna bay setal ko donc tay so xolé bir mirna bay yépp vraiment euh, membre TDM yi dugg nañ fa ngir setal mirna bay donc té madame la présidente légui la fi joggé jox ñu ay encouragement am wax ñu tamit message du président de la république comme Kaolack nak dañ ko baké né Kaolack dafa dafa dafa dafa tilim dafa salté yaakar na né journée yu melni baxna ci té si te tamit vraiment euh, taxaw na ci activé wu na si vraiment ba nga xamantene tay yaakar na ku ñew mirna na di nga xamné fuñ fuñ jaar yaakaar naa ne dinañ bëgg chaque jour ñu jaaraat fa donc loolu daal moo nekkoon tey waaw matériel yëpp madame la présidente du conseil économique social et environnemental moom moo ñu ko jox vraiment teg ko ci loxo mouvement am pour ñu taxaw si te yaakaar naa ne du yem fii kese parce que def nañ ko le 4 def nañ ko tey le premier incha allah nii lañ koy continuer d'ailleurs ñun duñ xaar sax ba journée yi di ñëw chaque fin du mois premier samd bi ñun dinañ activé wu nga xamante ne chaque dimanche dinañ seeti association yi si koñ comme ça japp ci mbir mi ba nga xamante ne su journée bi ñëwee danaka dañuy laal tuuti rek koñ bobu gëna set té aussi ñun message bi ñuy lancer moy na nit ñi xamné affaire bi nekkul pour def buzz wala wala show donc nañ xamné ci quartier yi lañ wara dugg lañ wara a setal parce que ñu ci bëri dañoo japp né suñu bërepp sangam ñëpp fa lañuy daw dem bàyyi quartier yi alors que tay mbalit yi ci kër yi lañuy ñuy ñu teg ko ci biti wala nit ñi sanni ci mbedd mi donc ñun ñëpp ñu ñu def loolu tamit di lancer un appel à l'endroit des populations également que ni ñun fépp fu ñu jaar suñu sétalé donc na am suivi aussi suivi bi moom population ñom ñoko mëna def ñom tamit nañ fexé ba danaka seen mbalit nañ xol fenn fuñ koy def ba camion mën fa jaar jël ko wala ba charrette yi charrette bi ak yoy noonu yëpp mën ko jël parce que loolu rek moy mëna mën a tax président atteindre objectif bi ñun tamit ñu atteindre suñu objectif mais fekkee né fo xamante dañ fa jaar sétal ba paré mi mu turee santuñu ko ñu def ko ba paré après ñëwaat ñu ñëwaat sottiwaat fa mbalit di xaar fin de mois jot mën na am mbalit boobu noonu ci diggante bi mën na créer ay feebar mën na créer lépp lu nekk loo xamante ne daanaka mbir mi ci suñ famille lay dellu siwaat parce que xale su génnee fo si mbalit dana indaale feebar ci biir kër gi te mën na wàll ñeneen donc loolu moom ñëpp nañ ko xam ne président objectif boobu la ci am aussi responsabiliser les jeunes donc la jeunesse que nous sommes soo leen xoolee tey tey am nag am na ay femmes am na ay jeunes am na ay adultes soo leen xoolee tey lii rek déjà lu lu rëy rëy la néew na ci mouvement nga gis vraiment mu am ay femmes am ay jeunes am extra té suñu yaay yëpp ñew japp ci vraiment tamit bok ci journée bi gëm mi Touré rek moo tax ñu def ko tay so leen xolé jeunesse bi tamit gëm mi Touré motax ñu def liñ def té dañoo xaaj sax def ko ay patch patch ci biir Kaolack mais Médina mom daf nañu exceptionnellement Médina mom bëgg na mu set wecc